bu diix nañu ca jàpp góor gi dalli ñu naan mag la manul wax yàqu la mu ngi def lu ndaw bi ci jiitu mooy li nga xam ne dañu ko bokk muy poste de santé bi ku nekk xam na poste de santé bi ni muy doxee ñun ñu am mébét ci ne ëllëg si biir suñu kattan bu bu eggee ca loola dañu fexe ba poste de santé bi ñu àndal ko ba yóbbu ko ca tëli ca fee nga xam ne mooy 30 ba nga xam ne am na fa kër goo xam ne si nii mat na sant mètres carrés cent mètres carrés yooyu banque la hopital bi di wersi ku nekk xam na ne kon banque bi attan na lu demee noonu suñu waxtaaneek moom ngir mën koo mën koo liggéey ñi jël hôpital boobu àndal ko ci 30 bi fii hôpital bi nekk ñi def ko université Cheikh Ahmadou Fadiama Niane xale yi jugee ji xale yi nga xam ne dañuy jugee Touba di dem di dem euh, Kéré Mbay wala ñuy dem Mbàkke ñi dem di jàngee si fii parce que doomi dëkk bi matale nañ ko mais nag Kër Ñang dafa bindoo noo xam ne ku jug ñu galgal la man na ku ne xam na ne galgal nañ ma façon bu ne waaye sëriñ bi dimbale na ma man du ma tiit du ma jàq waaye duma tooñ du ma tooñlu loolu moom suñu borom dimbale na ma ci. beneen bi ci topp mooy ku ne xam na ne bi ñuy tabaxaat canal bi def naa déclaration bi pour ñu ubbil Kër ñaŋ aw yoon ndax yomboon na trop ñi jël mbedd bi mu continuer ñu jaarale ko ci digg kii bi defal ko benn benn benn benn benn pont boo xam si ne ndox mi ci suuf lay nekk nit ñi di jaar ci kaw oto yi di jaar ci kaw di dem mais loolee dañ koo gàntal yaakaar ne loolee su continuer suñu baat day jum kaw kon xeex boobu Kër Niang ñoo ko war a xeex beneen bi ci topp mooy ku ne xam na ne Kër Niang gune gu ne danañ jël un kilomètre carré sans valtu di ko dugal Kër Niang fu mu dugg nañ ko leeral askanu Kër te loolee conseil yi nga xam ni teg nañ leen fi conseil yi nga xam ne teg nañ leen fi ak yeneen ak yeneen yoo xam si ne lii ñuy xëccoo tey buñ ko jotee loolee mën naa saafaraw incha allahu rabbi te man de ñaanuma yàlla su ma ko nammee def yàlla bu ma jëriñu ci sëriñ Modou Fadiama ëllëg ma dem ba lii may xëcc ñu jot ci man man gar naa jook su ma ko nammee def yàlla bu ma jëriñu billahi wala ilaha sim yàlla bu ma ci jot bu boobaa su fekkente damay damay fal damay damay ñaan lii ma ñaan ànd koog askanu kër ñang wii wan leen ginnaaw yàlla bu ma jot ci lii ci darajay Cheikhul Khadim yàlla bu ma ci jot ci barke Cheikhul Khadim laa su fekkente ne nar naa leen ci wan ginnaaw yàlla bu ma ci jot ci darajay Serigne Touba beneen bi ci topp mooy tey ma ñëw fii kontaante la ak mbégte ndax yaakaar naa wax nañ ko léegi ci biir kii bi daayira bi yaakaar naa ne mbootaay gi wala boog dañ naan daayira bi maa ko bokk naa ci ñi ko sosoon ànd ko ak jigéen ñi ñëpp ngoonu alxames bu ne soxna si may damay summeeku bàyyi place ba ñëw ànd ak ñoom ci bale yi di bale bu aju ma jotee ma takkaat seret bi ñuy roñ mbalit moomu kon man lii daf ma neex loo xam si ni tey ma ñëw fii daa bokk ci itte yi nga xam si ni moo doon gën a doon sama itte man beneen bi ci topp mooy dégg naa seen jàmbat man de du ma digi man de du ma digi waaye nag comme ni may doxee di ko doxee ci gox yu bëree bëri yaakaar naa ne Mamor mi ak gars yi ci bëri bëri fekk nañ ñëw nañ fi ba lancé fi sax message bi wan ne leen maanaam danañ banque bi ñu àndal di liggéey. ndax nit itam day wax lu man dige lu muy def man noonu laay doxee ci sama adduna banque laay liggéeyal ak moom jamono bii ñu toll ñoom dañ ne dañuy bàyyi ba at mi nga xam si ni mooy vingt 2021 bi jeex ñu doog a tàmbaliwaat seen i financement ñëw naa fi yaakaar naa waxtaan naa ci ak soxna Ndeye Kebe suñu demee ba nga xam ne banque bi waat na liggéeyam képp ku bëgg liggéey maanaam lépp xaalis te di ko fay dañu la lebal xaalis nga dem liggéey fay loolu de man waaye du ma di kenn nag ne ko man kat dama lay may xaalis boo xam ne da nga koy liggéey suñu demee nag ba yàlla dogal parti bi ci jëmi boppam am lu mu génne wala boog yeneen ñoo xam si ne mën nañoo dimbale ngir yàlla ñu jàppale ñu ci xaalis boo xam si ne dañ koy jox askan wi Cheikhul Khadim xam naa ne da ngeen jot seen wàll waaye nag damay bëgg itam man du ma ne la toogal ma dem jàppi di la indil dama naan la jugal ñi dem jàppi ma wan la ni ñuy jàppee ci géej gi su ko defee nga jàpp jën indil kër ñang man nag kër ñang ma itteel ñii may àndal ñëpp xam nañ ne bu ñuy xaccoo man dama naan kër te bu ñu eggee fee itam su ñu eggee fee nga xam ne ni fa conseiller nekk yaakaar naa ne da ngeen xam ne tabbu ku yaafus man moom yaafusuma waaw pànk pire la damay pànk pire ci li nga xam si ni dama koy xaccoo waaw da man man ku ma xam ku ne xam ne duma duma duma ma yox yox yi ndax bu ma doon yox yox yi fii ci parti bi ndax suur ba ma njëkkee def déclaration ñi ñëpp xam nañ ko bii nga xam si ni ñi fi nekk dañoo bàyyi ma def déclaration ci ngoon googu Seexul Xadim xam na ne fetal génn na ci man ah tey bu fekkonte ne du dëgg ci man nan lay def kon damay yox yox yi ma dëpp yeneen ak yeneen dig nañ ma ko waaye loola lépp iteelu ma lan moom iteel mooy yal nañ am njëriñ ci kër ñang yal nañ am njëriñ ci kër ñang beneen bi ci topp mooy bii wax naa leen ko nee naa leen li nga xam si ni doon nañ ko jàmbat ci biir panel bi soxna jaar yaakaar naa ci problème mu keesu mbalit yi nga xam si ni dañ koy teg ci yenn gox-goxaan yi lijjanti nañ ko topp nañ ko ba yàlla dogal na bi ñu demee eh, eh, bërki démb waa ji xamal na ma ne comme nii la demee dinaa la ci jox ñetti kees yoo xam si ni foo bëgg ñu tegal la ko léegi nag ñetti kees yooyu ci yéen la des mooy kees yi nga xam si ni dañ fay sotti mbalit ma camion yi ñëw di ko jël léegi kees yooyu yéen yéen ay xool fu ngeen koy teg su neexee Serigne Touba ñoom seen seen kii bi ñëw da jot ci da ngeen jot ci loola kon daal li nga xam ne si ni daal mooy eh, lii nga xam ne moom lañ fiy def nañ ñaan yàlla réussir ko ba 2024 ñi may euh, mille vingt 2024 ñi tabbu Karim Wade président de la République de Sénégal ma wax leen beneen mbiritam xanaa damaa yaakaar ne ñàkku leen fayda ñàkk gu toll nii ñàkku leen fayda ñàkk gu toll nii kenn ñëw fi di leen présenté Macky Sall borom lex yu rëy yooyu borom biir bu ngand bi ngeen di ànd ak moom. Sénégal li tax ma leen dafa ay gaaf diiru mu nekk Sénégal ak léegi ah Sénégal daal deltu ginnaaw sama maam nag dafa ma waxoon ne ma ñi nga xam ne dañoo dëgër bopp di ko fal nañ bàyyi xel ci ne ku dul ree di fëslantey loxo wërsëg bu gàtt xol bu bon lii la Macky Sall asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di nuyu bu baax ñu ngi fi fekk di jaajëfal bu baax Sidi Wilane mii ci liggéey bi muy liggéey ci parti bi ndax liggéeyam daa am solo lool liggéeyam daa solo lool ndax parti yi bu doon moom tey jii Kër Ñang duñ dootuñu fi tuddati PDS dootuñu tuddati Abdoulaye Wade dootuñu tuddati Karim Wade loolu kon dañ ko ciy sant bu baax di ko jaajëfal bu baax a baax di ñëwaat bu baax ci li waral ndaje mi ñii ànd ni ñëpp bëgg Abdoulaye Wade moo leen boole bëgg Karim moo leen boole bëgg système bi fi nekk changé moo leen boole bëgg Karim doon président moo leen boole loolu nag bu fekkee dañoo bëgg Karim Wade nekk président daa am fu muy jaar ndax élection présidentielle 2024 lay amaat maanaam fii ak ñetti at waaye fii weer danañ am ay élection élection yooyu mooy li ñuy woowee élection départementale élection départementale yooyu ay liste la maanaam PDS dafa am liste ci département bi liste boobu ñu ne Kër Niang kat ki koy teewal ci list bi ak ñi koy teewal ci list bi Sidi Wilane mii ci la bokk loolu lu muy tekki mooy maanaam conseil départemental ay pouvoir la yoo xam ne état moo koy jox maanaam département bi li mu war a budget bi mu war a yor wala li mu war a yor ci liy doxal réew mi da tibb ne euh, département bi jox naa leen ko seet leen seen doom yu leen doy maanaam seet leen seen i doom yu leen doy ngeen jox leen ko ñu ñu géral leen ko defaral leen seen dëkk ci loolu nag bi PDS taxawee. dañoo tànn Sidi Wilane mii ne yaa fi représenté Kër Niang ci list PDS kon donc lu rëy la jàmbaaram moo tax ñu tànn ko liggéey bu muy liggéeyal Karim Wade moo tax ñu tànn ko ci loolu. loolu nag lu muy tekk mooy maanaam bu ñu demee ëllëg ba yàlla dogal list bi gañe te ñoo ngi ñaan mu gañe maanaam lii di jigéen ñi dañ ciy am seen wàll ndax jigéen Touba comme ni ngeen ko waxee sonn nañ. góor ñi Touba tamit sonn nañ loolu lu muy tekki mooy maanaam wàllu njàng meeg njàngale mi ñoom dañ ciy am pàcc bu yaatu buñ ci war a bay wàllum euh, wér yaram gi ñoom dañ ci am wàll bu yaa wuñ ci war a bay wàllu suqali askan wi dañ ci am wàll wu yaa wu euh, ci war a bay ndax bu ñu yoree pouvoir boobu tey Sidy Wane fekkee fa ñuy décider wala toog fa ñu bokk fa ñuy naan nas di ko noccee ñu génne ci lu war a jëm ci jigéen ñi bala moo xalaat kenn jàpp naa ne dana xalaat ne am naay jigéen kër ñang lu doon dooley boppam de ndax xam nañ ne xëy na yàlla dogalul moo ngi bokk ak lim am ci wërsëg moo ngi koy bokk ak nit ñi waaye bu boobaa tey jii loolu mooy gën a yaatu maanaam bu yàlla dogalee ñu fal leen loolu mooy gën a yaatu kon li ñuy wax développement ci jigéen ñi mën naa jaare ci loolu. développement jigéeni Kër Ñaŋ mën na jaare ci fal googu ñu war fal Sidi Wilane mi fal bi ñu war a fal liste bi mën na cee jaare kon donc li ñuy wax nii du ay naxaate du ay caaxaan ndax ruus naa wax fi loo xam ne nday ñas mais nga xam ne bañ dëkkeek léegi ëpp na fanweeri at may wax loo xam ne danaan a ah, maam Mor de moo waxoon nangam loolu du ma ko def moo tax lii loo xam ne fii ak ñaari weer wala fii ak weer le 23 janvier bii lañ koy voté buñ falee nag am na yu bëri yoo xam ne war nañ ca ay njariñ yoo xam ne war nañoo jóge ca loola ñëw ci askanu Touba ñëw ci askanu département Mbacké loolu nag dañuy jàpp ne ñun buñ ñu jee eh, ñun suñ liste bi yor ñoo gën a selli xalaat ñoo gën a yërëm jigéen ñi ñoo gën a yërëm élèves yi ñoo gën a yërëm ndaw ñi kon donc ñoo ngi leen tàllal loxo ci loolu ñun nag duñ ne kii comme ni ko soxna si waxee rek it duñ ne nuyu yàlla nuyu na la te gisuñu ko waaye dañ naan leen nañ ànd lu ñu am ñun dañ naan leen nañ ànd lu ñu am ëllëg ñu ne nañ ko teg ci taabal ji ku ci nekk lam ci yellool mu jot ca lam ci yellool jàpp naa ne loolu la Sidi mii di doxal jàpp naa ne loolu la Maam Jaara mii di doxal moo tax fu ñu dem rek ñun discours benn la duñ leen dig loo xam ne mënuñu ko duñ leen dig loo xam ne duñ ko def dañ leen dig loo xam ne tey jii buñ ca eggee ñu mën koo def ndax Touba bu fekkee wàllum njàng mi ay jafe-jafe la suñ xale yu bëri bu ñuy jàng dañu am ay jafe-jafe te loolu li koy oyofal mooy conseil départemental moo ci waroon a jàpp oyofal leen ñuy am ay demuwaay ñuy am ay jàppale seen i seen école yi ñuy jàngeek yooyu yëpp bu dee faju bi ñëpp xam nañ ne faju bi cher na mett na li ko waroon a jàppandil mooy conseil départemental am ci ay pexe yoo xam ne war na koo teg pour faju mi yóbbu bu dee jigéen ñi développement suqal leen ay formation ñuy ñuy ñuy ñuy produire seen i yi bopp di ko jaay li ko waroon a jàppandil mooy conseil départemental bi te conseil départemental jàpp naa la mu ci waroon def defu ko ci. kon donc ñun bu ñu bu ñu falee yooyu mooy li nga xam ne dana koy ñaxanal ba ku nekk mën a gis sa bopp ci mbir mi moo tax ñu leen di woo duñ leen sax ne leen xamu leen bi waaye xam ngeen bu baax liste Ablaye Wade nu muy mel liste Ablaye Wade moom mooy liste bu zone bi am gubu dugub bu mba dugub dugub bi loolu moom jàpp naa ne ñëpp xam nañ ko. voteel ko nag voteel liste bi li muy jariñ mooy tey jii buñ gañee liste yi ab buntu bu yaatu lay tijjil Karim Wade pour mu nekk président de la république te Karim Wade fii la yaakaar Abdoulaye Wade comme ni ko doon wax bu gañee fépp bu pertee fépp te gañe Touba rek mel na ni gañe na fépp kon donc ñun nañ ko daan defee ñoo ngi leen di woo ñu defaat ko noonu gañe-gañe gu yaa Touba ba li nga xam ne bëgg nañ ko ci dëkk bi li nga xam ne bëgg nañ ko suñ candidat Karim Wade loolu lépp ñu teg ko ci loolu lépp ñu ko kon donc ñoo ngi leen di jaajëfal foofu la ñuy tënkee kàddu rek xam naa li ji matul ñi ma àndal nañ ko mottali. ñun nag comme li fi sama ji mbokki jigéen yi wax rek donc la la ñuy waxaat ñoo ngi seen ginnaaw pare nañ fu ngeen ñu woo daal ñoo ngi seen ginnaaw jàppale leen xanaa dañuy feddali rek waaye ñun bañ àndee ak yàgg na ndax fii mboolem jigéen ju fi toog yaakaar naa boo ubbee xolam bi ab Wade moo ca nekk bañ ko yàggee voté lit yàgg na élection musul jot fii man boog yi ma fekkee yëpp 2012 ba nëga ni maa ngi voté de waaye amul élection bu ma voté te voté lu ma Ablaye Wade man Sidi Wilane mi xam na lool bureau yi ñu jaar bureau vote yi ñu jël présentation yi man maa fa daan teewal bu kër ñang bi maa daan teewal Ablaye Wade ci bureau yi kon nag xam nga ne ñëwaat nag danañ ci jàpp bu baax a baax élection locale yi di ñëw nag maa ngi wax sama mbokkum jigéen ñi waa Kër Niang waa Kër Niang yéen ñi nga xam ne yéen a ngi fi toog fii yëpp te ngeen yéen ñëpp ngeen jaayante waxuñu tàcc yi kase ñëpp am carte d'identité na ñëpp dem voté ji këyitu Abdoulaye Wade bi ñëpp xam nañ ko ngeen jàppale ñu jàppale seen bopp te yaakaar naa di ngeen ko def incha allah rabbi xanaa ñeneen laay tiit waaye ñii moom tiituma leen bu dee ñoom rek seen carte dina dem. solal nañ leen ay déguisement wax ngeen ko jox nañ leen fi ay bale ba taay yóbbu nañ leen tey bale yi ñu indi leen ko fii tey ñaan leen balaa bale yee ñu ne conseil départemental mi ngi suñu loxo xanaa loolu bu boobaa da ngeen xam ne lii du doon ay nax Sidi Bilal du koy naxe ñun ñi mandal duñ koy naxee ka nga xam ne mooy suñu leader du koy naxe muy Cheikh Mbacke Bara Dolly kon na ngeen xam ne fii ñu taxaw tey fii di fi wax ñaan nañ yàlla buñ fi dellusiwaatee seen seeni xol sedd. bu diix nañu ca jàpp góor gi dal ñu